boo xamee suñu réunion tey bii nga xamante ni APR ci biir commune Tivaouane ñoo ko woote ma ànd ko ak sama frère Abdou Ndéné Sall ak yeneen responsable euh, APR yi nekk ci biir dëkk bi yëpp dañu dajale suñu ay militants pour euh, waxtaan ak ñoom fi tàmbali d'abord expliquer leen solo bi nga xamante ni élection yi am na ko ngir gën a dooleel le président de la République ci Assemblée nationale ndax lépp loo xamante ni nii yéeneem la ci Sénégal mu war ko doxal mu am ñu ko fa toogal ñoo xamante ni dinañ ko ko woteel loolu nag bu amee ñu war a tànn ay député xëy na Euh, ci Sénégal gi yëpp li gënoon a yomb ci moom président moo doon département bu ne ñu ko bii góor ak bii jigéen moom lañu moom la ñu tànn waaye comme loolu euh, mënul nekk dañu wax département bu ne ñi fa bëgg a nekk ay candidat nañu bindu ñu yónnee ko président ba pare nag ñu jox ko lu tubaab di wax blanc-seing maanaam moom ñun ñëpp ñu d'accord nii lu mu décidé def ko ñun ñëpp ñu ànd ci loolu bu mu amee ci Tivaouane ci la tànn suñu frère le maire ay maire ñing bu Médina Dakhar ci wàllu jigéen ñi mu jagleel ko parti socialiste ñu tànn ajaa Fatou seen taftal si ñoom euh, l'honorable député Cheikh Tidiane Diouf ak suñu sœur également Adja euh, Gamou Fall loolu nag euh, bi mu amee ma profité d'ailleurs féliciter leen encourager leen xamal leen ni ñun dina mel ni ñun lañu investir pour jàppale leen pour que ndam bi nga xam ne moom lañ bëgg si parti bi ñu ñu am ko mais gis-gis si wuute na ndax am na ñenn rawatina ci biir APR yoo xam ne gis nañ ni. tànn boobu président tànn ñoom gis nañ ne waru woon a noonu ñeneen lañ waroon a lañ waroon a tànn ma ne nag nit ku nekk légitime na soo amee sa xalaat nga nga biral ko façon bi ñu koy birale it ñii dañoo jàpp ni réunion bu mel nii lañ war a toog waxtaanee ko xool ban taxawaay lañ ci am ñu nangul tamit ñi nga xam ni dañu wax ni ñoom li ñu gis mooy suñ d'accordul si mbir dañuy woo presse bi taxaw wax ko def li ñuy woowee jébaane def nañ ko. nangul nañ leen ko waaye léegi nag dépasé nañ état boobu ndax ay la yoon kenn mënul reprendre investiture yi léegi kenn mënu ko reprendre est-ce que un militant boo xam ni gëm na partem gëm na la président de la république dafa war a wax ni comme li ma bëggoon amul léegi damay voté contre wala comme li ma bëggoon amul duma ma campagne du jàppale sama parti sama réponse mooy déedéet bu fekkente ni gëm nga sa parti gëm ni président de la république mooy ki gën a mën a yóbbu Sénégal kanam bu tànnee ba pare même boo ci d'accordul ba nga fësal ko da war a ñëw nag dellusiwaat jàpp ci pour que ñi nga xam ne ñoom lañu jiital ñu ñu am ndam ndaxte xëy na bu ñu investir lu doon ñooñ ñu investir la yow am na ñu féete seen côté taxawaay bi nga am moom la ñuy moom la ñuy am kon tey jii je pense que ni ñun dañu jàpp ni dépassé nañu état bu investiture yi ñu nangu ko ñu bañ ko ñu approuvé ko ñu ñàkk ko dañ ko war a nangu ndaxte kat ñun ñëpp ñoo ne wax nag góor du weddi boppam ñu ñoo ni woon comme mënuñu dajaloo suñu biir tànn ñaari nit nañ jox président ku mu tànn ñu ànd ñii nga xam ne président de la république tànn na tànn na leen tey jii ñun ñëpp ànd nañu ànd ci. mais aussi dinañ leen jàppale bu baax a baax a baax ba ndam bi nga xam ni moom la président am yaakaar bi mu am ci Sénégal yëpp mais rawatina si Tivaouane mu am fi résultat yu honorable yoo xamante ni dinañ xam ni président taxawaay bi mu taxaw waa Tivaouane ñoom aussi delloo nañ ko njukkal ci élection législative yi mu nekk nag njëlbeenu fa ñu jëm ci en 2019 parce que jàpp nañ élection yi li ñuy wax naan cin bu naree neex bu baxee xeeñ élection législative yi mooy wane lan la élection 2019 yi nar a doon waaw euh, man ñi ma si jot a waxal euh, de jotuma dégg ñu wax euh, jot jot vote sanction ñi ma jot a waxal dañ ma wax nii ñoom seen xel nekkul tey jii ci voté loo xamante ni nii jëmul ci voteel suñu coalition. au pire de cas maanaam suñu naroon dem bay def mooy ñu toog bañ bañ a wote mais comme am na ñenn ci ñoom yaa ngi koy wax ñoo xam dañuy wax dañ nar a def vote sanction suñu taxawaay bii ñu taxaw mooy suñu jógee fii. ñooñu ñëpp ñi ngi yaakaar sax balaa réunion bi di jeex ñu ñëw fekke si ko ndax invité nañ leen te joxoon nañ seen kàddu ni dinañ ñëw fekke si ko ñu seeti leen waxtaan ak ñoom ni leen comme génn ngeen si li nekkoon seen dënn pour wax président que ni yaakaar ngeen ni taxawu bi mu leen war a taxawu actuellement nii méngoogul ak li muy def wax ngeen ko dégg nañ ko li des nag mooy ñu dellu si waat ñun ñëpp ci rang yi liggéey ngir incha allah ndam bi nga xamante nii war nañ ko am moom la ñu yéene président yéene ko coalition Benno Bokk Yaakaar ñu mën a ànd am ko rawatina nag bi nga xamante ni fii ci biir Tivaouane pas-pas yëpp yamul am na ñoo xam ne tey taxawaay bi ñu taxaw ak bi ñu yaakaaroon ni moom la ñuy taxaw ndaxte kàddu Serigne Abdou jib na si bokkul kon ñun lu ñu taxawoon benn dinañ ko taxaw fukk te incha allahu taala Tivaouane moom ndam rek lañ fi am li ñuy bañ kay mooy am fi ndam boo xamante ni dañ naan cinquante wala cinquante cinq pour cent lañ fi gagné dañu bëgg gagné fi score boo xamante ni président fu mu taxaw dina fàttaliku nii département Tivaouane mooy département bi ko gën a wooteel si élection législative yi ba pare répété waat ko en 2019 incha allah. yéen ñëpp ñu fi nekk ñu fi teew ñu ngi leen di masawu di nuyu ku nekk sa ak sa sant ak sa daraja bi bi ñëwee. di wax ni réunion bii réunion bu baax la parce que bu leen fàtte ni ñu ngi jëm ci législative il faut que nit ñi comprendre lan mooy législative ba pare balaa ñuy dem ci affaire nit ñi législative mooy que président la république dafa am benn pouvoir mooy pouvoir exécutif am beneen pouvoir mooy pouvoir législatif nga xam ni que ñoom ñooy contrôler liggéeyam bu amee ay yóbbu ko foofu ñu def ko te président de la république foofu nag li nga xam ni moo war a am mooy mu nekk un alignement entre pouvoir exécutif ak pouvoir législatif ba nga xam ni moom li muy liggéey dina ko mën a def ci jàmm dina ko def ci bu gaaw toujours dama naan bu ñu bëggee réew mi jëm kanam il faut que président mu am majorité au niveau de l'Assemblée parce que bu amul majorité au niveau de l'assemblée li mu bëgg liggéeyal nit ñi pour améliorer seen condition de vie ñee di ñëw te nga xam ni que ñoom ñu am majorité dañuy kale liggéey boobu liggéey bi day yeex liggéey bi day yeex te loolu nag ku muy gën a impacté mooy population bi bu ñu bëggee stabilité bëgg jàmm ñu dañu war def tout pour que au niveau national mu gañe fi largement gañe boobu nag Tivaouane da ci gën a yaakaar Tiwaawan li ci gën a yaakaar fi nga xam ne yaakaaru fa yëpp am na ñu fa jiital ñoo xam ni que dañ leen a tànn mais boo gisee fenn fu mu yaakaar boo xam ne dina amul benn problème gisoo fa benn ministre bu mu fa investir parce que yi nga xam ni que moo am ay dul la ñuy investir ay ministres yi siis yëpp on a dit ku fi amuñu fi benn yaakaar amuñu fa benn problème dañu war a gañe surtout Tiwaawan bi président la république dafa bëgg Tiwaawan ñu gagné fi largement bu ko defee bu ñu amee beneen problème maanaam day taale ci feneen ay Thiès wala dara ñu mën ko compenser avec le surplus de Tivaouane Tivaouane liggéey nañ bu baax parce que deux cent vingt mille électeurs quand même responsable yi yore woon loolu di ko liggéey liggéey nañ bu baax on a deux cent vingt mille électeurs dans le département léegi nag toujours comme li ma doon wax rek laay wax bu leen xool ki ñu tànn xool leen ki tànn nit boo ko gëmee di ko liggéeyal nga gëm lim lay liggéeyal gëm ni li muy liggéey bu ko bàyyiwul diñ ci gis seen bopp ñëpp diñ ci gis seen bopp bu ñu xool ki mu tànn dañu xool rek ki tànn loolu la ñu waxoon tànn da ba pare tànn bi man baax na baax na parce que de toute façon moom moo gën a informé ñun ñëpp moo ñu gën a informé te président du tànn mukk à la légère buy tànn da koy jaare ci kanu yu bare bare bare bare tànn na ba pare donc li ci des mooy ñun ñëpp ñu jàpp pour que am majorité bi nga xam ne yaakaaroon na ko fi mooy quatre-vingt-quinze pour cent objectif boobu lañ joxe woon ñun ñëpp mu président am ko fi maa ngi sant yàlla nag bi nga convoqué waa bi chef de quartier yi ñëwee parce que chef de quartier yi quand ñoom ñooñu mën a dimbali ci wax ak population bi wax ak population bi bu baax Tivaouane c'est important parce que moitié des directeurs département bi lu mu mag mag mag moitié des directeurs yi Tivaouane lañu dëkk Tivaouane lañu wootee donc Tivaouane ku fi gagné rek gagné nga département bi donc ñun ñooy les plus grands contributeurs te lii ñu leen di wax dañu bëgg yéen ci quartier ba ngeen nekk ngeen relier ko ngeen relier ko parce que kat ku la dig añ jox la ndékki teg reer bi bu loo waxee di ko gëm président Macky Sall li mu def fii Tivaouane def ko ci vie religieuse yëpp ba suñu sëriñ ni ko jaajëf tax na ñu war koo jox majorité bi majorité bi nag. président benn liste dafi am à loolu dinañ ci ñëw après parce que c'est pas les lieux maintenant benn liste dafi am à Tivaouane muy Benno Bokk Yaakaar te bopp fas bi amu fi beneen liste keneen ku fi def liste yi da koy jàppale aussi jàppale ko benn liste dafi am loolu leer na nañ il faut que ñëpp xam ko benn liste dafi am benn liste aussi la fi sëriñ bi agréé donc kenn mënul am beneen liste nii da koy jàppale mënul nekk ñi nga xam ne dañ def yeneen liste sax te nekk conseiller wala dara dañ leen a ci saa si donc vraiment loolu il faut ñu xam ko te léegi nag dama bëgg ñun ñëpp ñu jàpp ñu liggéey parce que Tivaouane ci résultat département bi moo fi gën moo fi ëppoon meilleur résultat xam nga département dix-huit collectivités locales la Tivaouane moo fi ëpp résultat donc ku fi gagné Tivaouane moo lay gañaloo donc il faut que ñun ñëpp ñu jàpp bu ko defee Tivaouane ñu gañe ko largement gagné département bi largement teg ko ci président loxo président la république te de liste c'est important mais ñëpp ci war a jàpp. parce que tëddee bi rek mënut a gagné ab département il faut que ñëpp jàpp ci ñëpp jàpp ci xam ni président Macky Sall liggéey liggéeyal liggéeyaluñu nit boobu dañuy liggéey pour que président de la république am majorité bi au niveau de l' assemblée te président de la république jig nañ nañ ko. léegi nag ñi mer ba def conférence démb bu leen xalab aussi suñuy nit lañu suñuy liñ nañu ku mer nga wékku dem mur de lamentation wax c' est important parce que mer boo ko génnee rek. day wàcc li gën a bon ci mer mooy mer boo xam ne da nga ko génne tu n'es pas franc nga jënj ko ci sa biir fas yéene doxal doxal boo xam ni que ah baaxul mais bis boo ko génnee génne nga ko comprendre nañ ko parce que wut wut teraanga dafa metti dafa nekk ci xol teraanga dafa nekk ci xol teraanga dafa nekk ci xol teraanga boobu nag ñëpp bëgg nañ ko ñëpp bëggoon nañ doon député parce que ñëpp am nañu mérite député koo fi gis rek. ku ànd ak président Macky Sall ku ànd ak moom léegi ku àndoot ak moom yaa mérité nga doon député il faut ñu wax ko ñëpp mérité duñu député mais tànn boo xam ni ñaar lañ ciy jël toujours day compliqué ñëpp département yëpp am problème parce que ku nekk ku nekk léegi démocratie dafa dem ba nga xam ni ku nekk rek da ngay tëb daal ni bëgg naa doon député bu yàgg am na cër yoo xam ni bu ñu ko daan décidé ñu koy laaj duñu bari mais léegi département bu ndaw bi rek 31 <coughs> personnes bind nañu te ñoom ñëpp le président liir seen liir seen ñibbi bind ñëpp déposé président liir na seen candidature par rapport sax xam na li gën a baax ci département bi li gën a baax ci département bi moom la def parce que aussi dañu ànd ak suñuy nawle Benno Bokk Yaakaar xam nga bu fekkoon ne ci au conseil des collectivités territoriales joxoon nañ leen kenn kon bii pas jël de députés yi mais mënuñoo dajale juróom ay élections yu bari jël yëpp parce que bu boobaa ànd bi du neex ànd bala moo neex bu amee da ngeen di da ngeen di da ngeen di cëralante président Macky Sall moo tax mu cëral mu cëral euh, waa benn Bokk Yaakaar jox leen vraiment jox leen jox leen euh, jox leen vraiment benn benn benn benn candidat te kooku aussi mu yàgg ci pees ñu war ko jàppale. boo ngeen gisee il faut ngeen analyser parce que ñun vraiment département président cëral nañu boo gisee ñi jëkk ci département bi te nekk ci liste électorale yi nekk daal des position éligibles mat nañu cinq. beneen département amu ko lu dul département yi ma ngi muy dakaar muy Touba sinon ñun rek ñoo ko ci am ñun rek ñoo ci am cinq députés yi nga xam ni wóor nañu ni bu ñu jàppee bu baax dinañ ci nekk ci liste bi mën nañ leen citer mais soxlawul parce que mën nañ ci citer Alelo mën nañ ci citer Aymirou mën nañ ci citer Fat Sène mën nañ ci citer euh, kii euh, Cheikh Ndiaye donc ak Yaye Diallo donc vraiment loolu nag bu la ko bu ñu la ko defaree il faut nga xool bu baax. xool bu ba xam ne cëral nañ la parce que yeneen département yi waroon nañu mer mais ñun waruñu ñun ñun waruñu nekk di mer ci loolu parce que il faut une solidarité parce que teraanga dañ koy bokk il faut une solidarité ku ñu jiital rek ñun ñëpp ñu topp pour mu am ndam bi le maximum c'est ça la solidarité entre les gens parce que loolu bu ñu ko deful jour bu ñu la jiitalee di nga bëgg woo nit ñi pour ñu solidaire pour voter la doo ko am toujours loolu wax nit ñi ma ne ku ñu tànn rek. na ñëpp teer ci li ñu bëgg dem ànd ak moom parce que bis dañ la tànn nga bëgg nit ñi accompagner la bu boobaa dinga am problème pour nit ñi di la accompagner donc yàlla baax na nag ñi ñuy tànn ñun d'accord nañ ci d'accord te ñi di président tànn ñun ñëpp dinañ ci jàpp def élection comme ni ñu ko daan defee comme ni ñu ko daan defee ku am sa moyen indi ku am sa logistique indi ñun ñëpp ci jàpp ci pour ñu am une victoire éclatante au bénéfice du président la république parce que président de fonk na département bi te xam naa bu ñu amee victoire éclatante aussi ñii di kaas ñëpp dañ ci am parce que président il faut mu am dara bala nga naan naam ne fa il faut mu am dara lu mu leen cëralee parce que bu ñu ko sanctionné léegi nii mais eh, dootu leen am lu mu leen cëralee ki nga xam ne yéen a nekk yaa ngi koy bunge depuis lors moom mu yokk yore dëkk bi yore ko yore waat am deuxième mandat ci lay am lu mu la cërale donc vraiment c'est ne n'est pas être intelligent de votre sanction wala dara l'essentiel mer nañu xam nañ seen mer bi ñun ñii dinañ def une commission bi nga xam ne dañuy dem seeti waxtaan ak ñoom parce que nit bu meree ba génn defar da nga koy ñibbanti dinañu dem waxtaan ak ñoom indiwaat leen ci parti bi te xam naa ne bañu ci parti bi parce que parti bi ci ñu ko dëggal ñu ko sooke ñu koy liggéey ci la ñu bokk moo tax ñu bokk ndey bokk baay xam ni ku nekk sa wërsëg yàlla moo la koy jox di ko jaarale ci kenn ku gëmul loolu nag di ko sonn wërsëg yàlla moo la koy jox sa wërsëg boo juddoo la ko yàlla di définir bis boo ko teelee lekk da ngay dee dem sa yoon <laughs> boo ko lekkee rek dee kenn mënul di mënul lekk loolu sa wërsëg donc vraiment xëccoo beeg wax yéeg wax yu bon yéeg écart de langage amul njariñ amul njariñ parce que boo gëmee yàlla nga dëkk Tiwaawan ba pare gëm yàlla doon taalibe tiijaan ah nga xam ni wërsëg yàllaa koy joxe lu dul sa wërsëg doo ko lekk boo ko xëccoo bala moo ñëw da ngay dee wala dara te sa wërsëg doo ko lekk donc vraiment il faut que nit ñi gëm yàlla xam ni député ñaar rek a koy doon ci département bi ci ci liste départementale ñaar ñu ko yàlla wërsëg rek diñ ko doon mais ñun li ñu war mooy suñu parti ak benn bokk yaakaar ñu ñu wax ci di ci wax jàmm di ci wax lu leer am cohésion am cohésion jàpp pour am maximum de résultat pour mën a laaj pour mën a laaj même même ñii ñun ñii man ak euh, le maire Diagne Simeng engagé wu nañu surtout les maires yi nga xam ne am nañu ñu bëri ñu ci maire engagé wu nañu pour premier ministre recevoir leen xëy na moom mu ëpp jot président pour wax leen wax leen nii wax leen nii mais bu ngeen amee sax ñuy jël ci maire ñu jël maire da war a kontaan parce que mënoon nañ jël kenn koo xam ne du maire. du def mais yéen seen corporation jël nañ ci kenn da ngeen war a yéen ñëpp jàpp ngeen dimbali ko ngeen jàpp mu gagné nga xam ne bu gagné largement yeneen bunt mën a génn président nag du récompenser nag département boo xam defaluñ ko dara sérieusement il faut que nit ñi xam ko département bu ko deful dara day dem ci beneen département bu ko defal dara mu récompenser leen donc vraiment bu ñu bëggee président récompenser ñu affaire yi jëm kanam ñun ñëpp nañ jàpp xam ni yàlla mooy joxe jox nañ ko ñenn ñun ñëpp nañ jàpp mu dem te li ñu waxoon nit du wax di weddi boppam ñun ñëpp neewoon nañu man di neewoon naa du ma candidat euh, yow jawar nga doo candidat ñii doonoon candidat nee nañ leen bind leen bind nañu président arbitré na donc ñun ñëpp nañ ci jàpp mu daal dem bàyyi xuloo yi te bàyyi échangeante yi ci ci ci Facebook bi amul benn njariñ échangeante ci Facebook amul benn njariñ parce que Facebook day affaire boo xam ni nit mën na cee saaga mën na cee def dara parce que ku lay saaga ci Facebook c'est-à-dire que ñemewuloo day nekk en face yow saaga la saaga la te saaga dëkkul fenn damay toroxal nit dëkkul fenn xam nga fan la dëkk ki bëgg a toroxal nit yow yaa torox parce que torox day nekk ci fenn dëgg ci feneen donc il faut ñu il faut ñu xam lool il faut ñu xam lool parce que yàlla defaral nañu jàmm parce que ku nekk boo yewoo am say cër manqué woo dara di mën a lijjanti loo lekk mën a lijjanti loo naan te ne ko ñeneen ñi feebaroo dafa dara sante ko yàlla ku nekk yàlla lu lu mu ko wërsëgal nga jàpp ci moo gën ngay yàq loolu laa ci doon wax te wax ni bokk ndey bokk baay l'avenir est devant nous